faratala ci ñépp démb ñu tolloon ci al uslub as-sadis juróom benneelu méthode yàlla diñ ko nettali te mooy yéeféer yi wax ji ñuy wax ne lan moo tax ki nekk ab yonent di dox di ànd ak ñun amul kéemtaan bu jóge kaw asamaan comme nit ni ko yonent yi amee woon di dox di ànd ak ñun di lekk di naan borom bi ne gaañi ba tey ci loolu ñu ngay dox naan lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'an ñun de duñ la gëm yow Seydina Muhammad bu yeboo nga ba sonn duñ la gëm lu dul nga ballal suuf si ay sewnde yuy daw nga génne ci biir suuf si ay siyaan ay teen ay yolnde yuy daw boo ko mënul aw takuna ka janna min naxiil wa inab wala nga am ay jardin yoo xamante ne ay tàndarma la ay resin mu neex lool sëq lool rafet lool fatu fajjiral anhaar ci biir jardin yooyu nga explosé ji ay ndox ay sayaan ay dex allahu akbar fatu fajjiral anhaara xilaalaha tafjiro nga explosé nga defar ay yoon ay sayaan yu rafet ay yoon ay piscine su fekkee mënoo li aw tusqita sama kama zaamta kon nag fekkee yëpp mënoo ko kon daanelal asamaan suñu kaw kama zaamta alaynaa kisafan daaneelal benn parti asamaan bi ci sunu kaw fii kii yëpp mënoo ko aw yaati allahu bil mala wal malaika wala yàlla nag léegi nag daal lay indil la nag malaaka yi nag ñu jàkkaarloog ñun nag xubalan face à face allah ilaha illa allah yëpp boo ko mënul aw yakuna laka baytun min zuxraf nga am benn kër goo xam ne kër gi këru aar la dañ koo dessiné kër goo xam ne ku ko gis rek taxaw di ko settantal di ko xoolaat su fekkee yi mënoo ko aw tarqa fi samaa nga yéeg nag léegi daw asamaan ñu taxaw di la xool nga yéeg jaar ci kaw asamaan te doo teg benn eseel dara du la yóbbu yow yaay jóg rek daal di dox ak say tànk jaar ci kaw ngelaw li jëm asamaan allahu akbar xool leen li ñu proposé yonent bi ne na ko def ndax lii dëgg-dëgg doomu aadama mun na ko waaye dara pour jéem a gàllankoor liggéey bi rek moo tax ñu ne ko bu fekkee ab yonent nga lii def ko wala nu min duñ la gëmmuk li ruqyak li ruqyatika duñu gëmmuk sax sa yéegaay bi duñ ko gëm hatta tanzila alayna kitaban bu buñ la gisee nga yéeg asamaan sax duñ la gëm lu dul ñu gis la nga wàcce fa benn téere buy wane ne yow mi yàlla la yónni ndeysaan mu ne subhaana rabbi hal kuntu illa basar rasulan li yëpp ngeen may laaj lu tax ngeen koy wax xanaa xamul leen ne man doomu aadama laa kesela laa deuxième bi ñëwee ci juróom-ñaareelu méthode bi ñu ne ko al musaawamaat égalité ñaari diine yi da leen di tollale waaw sa diine bi ngay woote ak diine nasa diine Quraysh da leen di boole waaw loolu la waa mooy ñaar yépp na leen teg ci suuf walla mu daal leen di boole walla am lu mu bàyyi ci leen diineem su ko defee ñoom tamit ñu daal di bàyyi ñu daal di négocier daje ci digg bi yàlla mu ne waddu law tudhinu fa yudhinuun yow Muhammad nooyalal kat ci leen li ngay wax ñun tamit ñu nooyal waaw loolu moom chaque jour nga dégg ko bàyyil lii yenn saa nga dugg ci jàkk ñu ne bàyyil amiin waaw sa sikkim bi fa nga wàññi seen muuraay yi dafa ëpp waaw bàyyi leen jalsatu israa bi bàyyi leen tahiyatul masjid bu ñuy julli ngeen naan amiin ci kaw loolu fa ngeen teg ko ci suuf fa ngeen bàyyi xabdu bi di la bàyyiloo di la bàyyiloo yal na yàlla yërëm suñu sëriñ dafa doon wax ne suñ la bàyyiloo benn sunna bàyyi la leneen suñ la bàyyiloo leen rek bàyyi la waaye ndama qaalu la ibudu alihatina yawman wa nabudu ilahaka yawman ñu ne ko jaamul sa ya suñu yàlla benn fan ñu jaamu sa yàlla benn fan alquran daa di wàcc qul yaa ayyuhal kaafiruun laa abudu maa taabuduun wala antum abiduna maa abud wala ana abidun maa abattum wala antum abiduna maa abud lakum diinukum waliya diin yàlla mu ne loolu mun ta nekk jaamu seen yàlla benn fan jaamu yàlla benn fan yàlla mu ne waxal yow Muhammad yéen yéeféer man Muhammad du ma jaamu li ngeen di jaamu yéen tam du ngeen jaamu li may jaamu man mi déet man may jaamu li ngeen di jaamu déet yéen ngeen di jaamu li may jaamu kon nag lu fi nekk mooy topp leen ci seen caaxaan yooyu lakum diinukum waliya diin topp leen ci seen caaxaan ngeen bàyyi maag man sama diine mbokk jullit yi lii nii ay mbir la yoo xam ne tey mu ngi am ci àdduna ñiy wooteel yàlla tabaaraka wa taala ñu jéem leen wax yoo xam ne su fekkee yéen nekk ci dëgg def leen sàngam indi leen lii def leen lii wala jéem leen ngeen yemale mbir yi walla nekkal ci digg bi wala àndal ak say mbokk war dihim ma anta fi daarihim waaw négocier ñoom rek fekk yaa ngi ci dëkk bi daal wax dëgg yàlla waa dëkk bi li ñuy wax ànd ci rek même bu dee du dëgg sax nga gis ku leen taxaw ne la ànd ci rek waa defal ndànk rek waaw waaw bul forcer defal nii nangam ak nangam fekk xam nga ne lii du dëgg du caa ay caaxaan la lii fola lii du diine nga gis ñu jël diine bu ko tolloo rek loo xam ne du diine ay caaxaan ni waa Quraysh def léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko da ngay yemale mbir yi waaw yëpp ci diggu yoon bi. bàyyi lenn ñu bàyyi lenn ñu daje ci digg bi ñu mën a dëkk ñu mën a ànd ñu mën a nekk loolu lislaam xam nga ne mënta ànd ak ay caaxaan islaam mënta ànd ak ay po islaam mënta ànd ak ay mbir yoo xamante ne dëgg-dëgg du diine ay méthode la yoo xam ne waa Quraysh ñoo ko doon def démb ak yonent bi waaw nooyalal ñu nooyal yàlla ne déedéet jaamul sunu yàlla benn fan ñu jaamu sa yàlla benn fan yàlla ne déedéet lislaam moom lislaam la rek e yéen la wax qul yaa ayyuhal kaafiruun laa a'budu maa ta'buduun du ma jaamu mukk mukk mukk li ngeen di jaamu kon loolu leer na ca cëppeendal aaya bu jeex ba ba ca mujj yàlla mu ne lakum diinukum waliya diin topp leen seeni aada topp leen seeni bidaa topp leen seeni bokkaale ngeen bàyyi ma man muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ak li ma yàlla yónni muy diine lislaam ma jàngale ko ma leeral ko ma taxaw ci ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk kon doomu ndey yi gis ngeen noo ngi toll ci al uslub as-sabi juróom ñaareelu méthode bu gaa yi di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kat ah, dëgg-dëgg négocier ñu négocier ñoo ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu fay leen yiw fi dunia wal axira yàlla taxaw leen sàmm leen sàmmal leen boppam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.